Mugok chers fidèles internautes 221 ça fait un plaisir de vous dire que émission bu émission entretien avec entretien avec un jeune leader du nom de Farhan Dieng le directeur de la vie politique et de l'animation du parti S2D synergie pour un développement durable yoonu on un nous ñu ay ponk yu programme bu 221 may bu baax dama koy jox mu seetaan à travers Feeling 221 su ko defee ñu tàmbali mbir mi Farxaan nuyu naa la. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax di ziar. di nuyu téléspectateur yu seetaan Feeling 221. Euh, di nuyu suñu militants yi. di nuyu le président de la république Macky Sall son excellence di ko ñaanal yàlla yàlla woyofal yéen bi ci loxoom. di nuyuwaale la xalif général de la Faydatou Tidianiya Cheikh Mamadou Mahi Cheikh Ibrahima di ko ndokkeel bu baax ci weer yu nekk muy weeru gàmmu di ndokkeel képp koo xam ne jullit yi jërëjëf noonee la dugg see moom il répond sous le nom de Farkhane Dieng wax naa ko sànq un jeune leader bokk ci parti boobee ñu duppee Benno Bokk Yaakaar waaye tamit bootu ci ginnaaw leader boobee di wuyo monsieur Souleymane Ndiaye kon nag dinañ yéen ñi nga xamante ni yéen a ju doon topp di ñu laaj exactement kan mooy Farkhane Dieng ak fan la jaar ba yegg si fii tey ak fan mooy lan mooy parcours am yëpp dinañ ko indi ci tënk waaye itam dina wax ci parti boobee nga xamante ni ci la jokk moom ak ay militant muy waa benn Bokk Yaakaar loolee yëpp ci kanam la dina ci indi ay leeral bu baax baax a baax gannaaw bi nga xamee ni nag nuy nañ képp ku ñuy seetaan à travers Feeling 221 yéen a ngi ci émission boobee di boole utile ak agréable rien que pour vous servir tey ñu ngi ci diwaan bu coofak su ma doon su ma la doon laaj ci tënk kan mooy Farkhane Dieng sa passage si politique ba yegg si fii nii laataa ngay doon directeur de la vie politique et de l' animation du parti SBD la mooy tontu. waaw euh, loolu de xam naa dama koy résumé rek. Mhm. ndax su ma ko naree détaillé je crois que dinañ jël temps. Mhm. parce que ñun bu ñuy dugg ci politique yàgg na mën nañuy wax ne jamono bu ñu nekkee élève lu ñu commencé di ñëw ci politique. Mhm. li ko waral nag euh, yàlla dafa def na ñun depuis suñu enfance dañoo yàgg porté la voix des sans voix. Mhm. ba demoon sax ba dañ naan dañ naan dañ naan def rap muy musique bu ñuy wax rap. ndax gisoon nañ ne bu njëkk ba rap bi.

xam nga tey euh, rappeur boo ko nekkee di nga am sa wax dina am foo xam ne du fa àgg. Mhm. y' a beaucoup de Sénégalais yi nga xam ne dañuy rap ba bëri na ay kilifa yoo xam ne duñ ko déglu. Mhm. kon donc yow sa kàddu bu jot foofu du àgg foofu. léegi ñun on a choisi la politique pour que ñun lu ñu xam ak lu ñu bëgg buñ ko waxee mu laal askan bi yëpp. Mhm. catégorie bu mën a doon mu laal la. donc depuis ñu nekk élève ci lañ ko commencé. ñu ngi ko commencé nag ci parti bi ñuy wax parti socialiste. bi nga xam ne yor na réew mi woon 40 ans muy parti socialiste boobu ñun ci lañ commencé def politique. yàlla defoon nañu bu ñu ciy def politique en tant que élève ñu ne parti socialiste amoon ay kilifa yu mel ni Père Jokal Gadiaga amoon ci benn xarit bu ñuy wax Al Ousseynou Sy moom ba léegi mu ngi parti socialiste. moo représenté taxawu Sénégal bu taxawu Sénégal al l'université Cheikh Anta Diop moo ngi ko man ak moom ñoo bokkoon lycée Valdiodio Ndiaye nekk ci politique bi nekk ci parti bi nekk ci mouvement bi te ñuy MES <coughs> mouvement des élèves étudiants socialistes ci leen ci nekk nekk nekk ci ba 2012 2012 man battre naa campagne pour Tanor Dieng fii à Kaolack dañ naan gën def suñu sortie battre campagne ne ko Tanor ba yàlla def li mu def président Macky Sall jël réew mi mm-hmm. mais bu président Macky Sall jëlee réew mi 2012 man dama am bac dem université ma demee université nag trois ans yoo xam même bu ma politique tamit wàññi ko ma concentré de 2012 ba 2016 ci laa rencontré New ñuy rencontré Thierno à euh, ñu ba allé ci ay ci mouvement parti mouvement la mouvement Agir alliance générationnelle pour les intérêts de la République. mu wóolu ma la coordination de ce mouvement dans la région de Kaolack. Je yor ko coordonné je ko coordonné ñu def ba ci digg bi mu dénk ma lépp recrutement au niveau du du mouvement partout dans dans dans le Sénégal. ma koy coordonné ba en 2017. ci 2017 élection législative 2017 Thierno Bokum, mon nekkul candidat demul élection nekkul candidat demul élection léegi mouvement bi képp koo xam bëgg ngaa jàppale nit tu es libre nga ci ci lañ leader il est l'actuel maire de Tivaouane ñu yoroon benn parti CPJE ñu boole en 2017 mu investir ma fii au niveau départemental man ak maire ñuy wax Euh, kii Kébé Oumy Kébé Adja Oumy Kébé ak Serigne Aliou Cissé Guèss mii moom lañ defoon liste national neuvième sur la liste nationale man ma nekkoon liste départementale ak maire Adja Oumy Kébé yàlla dimbali ci élection yooyu laa commencé teg sama tànk nag biir Kaolack ndax élection yooyu yàlla dimbali ñu ba école bii may voté muy école Coofam ñoo ko jël deuxième derrière la Benno Bokk Yaakaar xam nga 2017 Benno Bokk Yaakaar am na doole élection yooyu parmi les 37 listes yu nekkoon dans le département de Kaolack ñun suñu liste bi boo jëloon sixième te ñun ñoo porté le combat. même mën nga dem ci ay villages man naa ni même dans dans dans la commune de Thiaré y a des villages comme Coupé ñun ñoo ko jëloon deuxième derrière la Benno Bokk Yaakaar. donc élection yooyu si lañ samp suñu dënd nag parce que boobu dafa fekk 2017 boobu ñu ngi woon Dakar bi dañoo bàyyi suñu wité yëpp ñëw fii toog baatu campagne. ba ñëpp xam ki lañ génnee nag ci élection yooyu en 2017 yàlla def dem jóg su nekk député ànd bi jeex ñu doon ñoom ñu delluwaat Agir. Mhm. continue ñu liggéey. ma nekk Agir di liggéey ma ne ni ñuy liggéey Agir Kaolack war na cee mën a gis boppam ndax ñu ngi waajal élection 2019 mooy élection locale. ci laa créé ci 2017 boobu ci laa créé le mouvement Kaolack va parce que boobu j'étais opposant pour redresser Kaolack yaa ngi dégg pour lutter contre la malgouvernance qui était à Kaolack. Mhm.

dañ naan dafay activité dañ naan dafay activité yu bëri yoo xam ne baaxoon na ci dëkk bi lool lool léegi nag bu ñu ànd ak Thierno boobu ba 2020 ba 2021 donc Thierno boobu ñu ngi ànd ak moom 2016 ba 2021 la ñu génn agir lu ñu génn loo agir nag Sénégal yu bëri ñu bëri ñu ngi ciy yaakaar na ñun dañoo transhumé fii dañoo ne non non non ñun dañoo am ay gëm gën ci politique parce que wax naa la dafa am ñu dugal ci politique ñun tëwuñ ñii rek ñun ñu produit ñu produit bu ñu nekkee xale bu léegi ñu ngi koy def dañ ko produit koo xalaat suñu kër moo xamante donc bu ñu demee kenn mu mouvement bi ñuy changer structuration parti bi mouvement bi noonu si man kenn bokk am lu mu proposé dama damaa bëgg nga yoral ma lii ma ko ah li nga bëgg de macha allah kontaan naa parce que yëg-yëg la mouvement boo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi ci nga tànn lu baax la moom lii laa bëgg nga yoral kontaan naa ci loolu waaye man de lii nga ma dénk mënuma ko yor ndax amoo ci expérience. Mhm. su ma sañoon boo may jox dara nga jox ma loo xam ne lu am expérience lu ma ci am expérience pour ñu ëllëg yéen mën def résultat parce que loolu mooy problème mu Sénégal problème mu africain yi da ngay gis benn médecin bu ñu jox wàllu mbay. Mhm. wala nga gis benn baykat bu ñu jox wàllu médecine donc loolu doo am résultat boo amul résultat lu nañu wax la ko yaa ngi dégg fekk sax yow sa mbëggeel moo la ci dugal mais mënoon ngaa bañ. Mhm. ci laa bañ ne lii du ma ko laal donc bu ma bañee lii du ma ko laal nag. ci lañ commencé ay affaire di génn affaire di génn non man ma désisté génn parti bi ma génnee ci parti bi jamono jooju j'avais un ami bi nga xam ne muy Souleymane Ndiaye dañ daan déggante téléphone te boobu ma sax ci parti bi bu nekkee opposant ma mu nekk opposant mais dañ daan waxtaan di déggante ma génnee ci parti euh, Thierno Bocoum bi mouvement bi toog naa lu man 6 mois bokkuma ci benn parti politique hmm. amul benn parti politique wala mouvement politique moo bokk bu mooyee sama mouvement bi ma mooy le mouvement va mal bi nga xam ne kon fenn kenn mentor politique mais may waxtaan ak Souleymane Ndiaye di waxtaan ak Souleymane Ndiaye un amoon moom relation di waxtaan ak ndax ko xam grâce à mon frère Ahmed Dieng mi nga xam étudiant la te étudiant à l'université mhm. donc bu le jour où Souleymane Ndiaye président Macky Sall nommé def ko directeur des infrastructures ko man boobu laa jël samay bagage ne dama koy dimbali dama koy jàppale parce que sas nañ ko te sas bii président de la République sas ko bu la moom rek du dox foofu mu am ay nit ñu taxaw si ginnaaw jàppale ko laa ñëw jox jàppale ko léegi maa ngi ci parti bu ñuy wax S2D yoonu naataange S2D nag mu ngi signifie synergie pour un développement durable synergie lan mooy ñu booloo ñoom ñu boole suñu doole comme ni koy Souleymane waxee de la vendeur de cacahuètes à l'ingénieur wala au président de la république mhm. ñun ñëpp dañu doxante loxo comme ñu mel ni chaîne benn maillon mhm. suñ ko defee ci lañ a yóbbu réew mi mhm. ko côté wala fu yoonu naataange yoonu naataange nag mooy abondance mooy lépp mat du yokku de nit mën naa yokk benn baaxut fekk fukk mu waroon a am nga yokk benn am loolu baaxut mais suñu waxee abondance yaa ngi dégg loolu la ñuy tënk nit ñi ñëpp xam nañ ko ci euh, tarixa Mawlana tarixa Chamadi yaa mooy fay fay mooy li nga xam ne dafa fees li nga xam ne dafa mat li nga xam ne dafa da da da doy na daal doy na sëkk. donc loolu foofu lañu bëgg a yóbbu réew mi yoonu naataan ñu ne yoon yi daal bu ñu fa argué bu ñu ko toppee danañ am abondance. Mm-hmm. kon depuis deux mille vingt ba léegi maa ngi ci parti bi ñuy wax SDD yoonu naataan yi. Mm-hmm. bi ma déglu nag vraiment euh, dugg naa ci ak engagement. Mm-hmm. ndax euh, politique dafa baax bi booy politique nga xam ci ngay ànd ak kan yàlla dimbale na ma xam naa Souleymane avant may bi ma duggee tamit gis naa vraiment ni def ma xam ne lii ñu jeune ñun jeune yi moom lañ soxla mentor boo xam ne ñu ngi teg ci yoon donc ci lañ ànd ak moom liggéey ba toll fii nii yàlla def na nag ci diggante bi nekk naa fi coordinateur de sa parti dans le département de Kaolack en plus nekk naa le directeur de la vie politique et de l'animation de sa parti au niveau national mm-hmm. donc yooyu yëpp muy wane ne ñun suñu liggéey bu ñu waroon def ci parti bi ñu koy def mm-hmm. donc euh, loolu daal en grosso modo en plus bu ñu duggee benn bokk yaakaar

par Kaolack et partout mhm. donc daal euh, en grosso modo loolu euh, jaar-jaar ci politique. Mhm. Euh, la politique nag je suis professeur d' anglais. maa ngi mhm. maa ngi ci école yi di jàngale après avoir fait le master 2 dama retourné au Bercail ici à Kaolack. yàlla dimbali ko ñu def di liggéey di jàngale. Mhm. donc daal budul loolu ñu ñu ñu ngi ci ñu ci lépp. Mhm. waaw ñu ci lépp. macha allah ko mën naa dimbali doomu aadama daal ñu ngi ci. Mm, macha allah comme ni ñu déggee ni nga waxee que ni euh, malgré ce brillant parcours fi nga xamante nii jëm nga fa jaar yëpp ci ci ci politique ba yegg si fii nii tey. Mm-hmm. mu mel ni am na loo junj léegi ci sa biir wax que ni dafa am benn mouvement boo tegoon pour dénoncer le mal lié à Kaolack. Mm-hmm. te kii di politique di base te yow Kaolack moom mooy sa base. Mm-hmm. est-ce que da ngaa jàpp ni actuellement Kaolack dafa bien wala Kaolack mu ngi dund jàmm ba tax tey mouvement boobu noonu dem fay te waxatoo ci dara. waaw euh, concernant ci tey Kaolack du muy doxee ak municipalité bi. Mm-hmm. donc man du ma wax ne Kaolack tey mu ngi va bien man ma ne Kaolack tey va mal même euh, Kaolack va pire. Mm-hmm. que 2017 2018 2019. tey Kaolack toolu ñuy dund tey ci municipalité am ni muy doxalee mooy le maire Serigne Mboup ak ay nitam ni muy doxalee. Mm-hmm. moo gën a bon fuuf li ko Mariama Sarr yore. mais nag dafa am loo xam ne. est-ce que est-ce que tamit du li nga bokk benn. non non li ma bokk tënk. Mhm. li ma tënk mooy man bokk naa benn bokk yaakaar wax naa la. 2021 mhm. maa ngi bokk benn bokk yaakaar. Mhm. donc boobu maa yor soo ba li ma tënk tey mooy li ma li li li ma tënk tey mooy dama bokk ci parti politique. parti politique bu ma bokk am fa cër am fa ndombal tànk. du nu ma neex lay génne du nu ma neex lay waxee. mais képp ku ma xam maa ngi ci benn groupe whatsapp bu ñuy wax Kaolack dëggu mi nga xam ne toutes les responsables de Kaolack yaa ngi dégg ñi bëgg Kaolack doomu Kaolack bi am solo ñun ñu ci groupe gis nañ taxaw bi mu fa taxaw jëmale ko ci sëriñ boobu te bu sëriñ boobu liggéeyoo de mois ci ginnaaw si six mois ci ginnaaw buy jaay di attaqué sëriñ boobu maa ngi leen ne nañ tey mm-hmm. parce que nit mënul ñëw dafa gund ma at ñu commencé di ko attaqué mais tay mu gisé né def nañu ma atte waa ji jëmul ci ñoom maa ma ci ka taxaw ne waji ji jëmul fu baax. donc man bu fi ansa né kon sax mo lay def bu fi kenen né kon sax mo lay def parce que toolu suñu toolu la c'est du walu politique quoi. parce que bu politique boo boolewul parce que ñun ñu fa nekk. ki opposant ki wa pouvoir ki société civile ki sa absolu absolument politique bu faru fekk donc ñun ñëpp lu ñu bolé ñu ñu teunk moy Kaolack jëm kanam parce que bu Kaolack jëmé kanam politiciens bi ñëw fi man damay respect donc man sans avancement du produit mu ngi bokk ci sama dëkk bi mu jëm kanam nit ñi jën kanam ci côté mor moom intellectuellement mhm. jëm kanam ci euh, insalubrité jën kanam ci lépp tool ak changé mhm. ku fi ñëw dox na ci respecté la mhm. donc mais nag su jëmul kanam ku fi ñëw duñuy dox ci duñu respecté loolu tax ñu combat bi defuñ ko ngir ay Macky Sall wala defuñ ko ay Souleymane Ndiaye mais dañ koy def ndax ñun fii lañ dëkk fii lañ yaroo xam fi la ñuy yeewoo fi suñu njaboot suñu lépp fii la nekk mhm. donc bu Kaolack jëmee kanam ñun ñoo jëm kanam bu Kaolack delloo ginnaaw ñun ñoo delloo ginnaaw te suñu waxee dara Serigne Mboup mhm. waxuñ ko dara ndax Serigne Mboup neexuñu ci jëmmam noonu mhm. ñu ak Serigne Mboup amul benn problème julli la ñuy julli te doomu aadama da nga war a bëgg sa moromu julli mais lu muy doxalee ñun la ñuy wax te yàlla daf ñu sant ne boo amee ab mbokk wala nga am am xarit bi nga xam ne mu ngi def lu dul yoon mhm. da nga ko war a wax mhm. te ñun suñu mbokk dañu ko jàpp ni comme suñu mbokk fekkee mu ngi yor dëkk bi di def loo xam ne du yoon mhm. suñu devoir mooy ñu taxaw ne ko sëriñ bi yow ni ngay doxalee kaw rek baaxul mu mën a dellu ginnaaw parce que loolu lool mooy loolu mooy àndandoo loolu mooy euh, euh, rôle jullit donc ŋàññiñ ko ngir bëgg ko ŋàññi loolu mais dañ ko ŋaññi mbur mi baax ndax bu mbir mi baaxee ñun ñëpp la baaxul. mu ngoog euh, nga bokk ci njabootu président Macky Sall nga bootu ci ginnaaw monsieur Souleymane Ndiaye waaye tamit nga faree fii au niveau de Kaolack ndax mën nga indi lan moo waral dislocation bi ñu nemmeeku fii xiiroo ngaayoo bi ci yenn responsable yi nga xamante ni ñoom ñoo faree ci benn bokk yaakaar fii au niveau de Kaolack ana lan moo waral lu ni mel. li waral li ni mel daal mooy mu ci am parce que coow loolu coowu waa APR la. Mm. tey boo xoolee Bokk Yaakaar parti bi ñu def moo ko boot mm-hmm. mooy mooy mooy parti maire mooy mooy ndey bi mm-hmm. comme le président de la République Macky Sall jiite conférence mm-hmm. yi ñu Dakar ñu ngi boo ñëwee fii au niveau local à Kaolack ñi jiite bi fii dama naan la c'est parti APR bi ñu ngi mais nag boo demee ci biir dafa bëri ay leader leader yi man xawma lan moo leen lan lan moo indi loolu du ma si mën a sori waaye daal lenn mën naa ko mooy àpp ne leen seen ñàkk jubóo ji bu mhm. danañ perte pouvoir mhm. parce que lu ñu mën a may doole mooy ñoom ñëpp ñu xam ne objectif bi lenn la muy fexe ba au soir bi 25 février 2024 mhm. ñu élire le président Amadou Ba te mënuñu élire le président Amadou Ba dans la diversité dans la diversité lu ñu mën a élire Amadou Ba mooy ñu joxante loxo que ce soit Modou Ndiaye Rahman, Pape Demba Maria Mariama tous les leaders de l'APR ñu xam ne ñun ñu benn parce que su ñuy naanee benn. Mm-hmm. suñu dof dof loolu nag bu robinet bu ñuy naanee tëj ñun ñëpp ñu perte ñun ñëpp ñu xëy ñun ñëpp ñu maar ñu allié muy muy waa s d waa AFP waa LD waa LCS bu sa bu Samuel sa Samba Sarr di représenté mm-hmm. ak yeneen parti yëpp. Mm-hmm. ñun gisuñu ne ñun am nañu problème ñun amul benn problème. benn problème amul ñi am problème kañ mooy waa APR. te ñu pare nañ pour liggéey ñoom liggéey bu am solo. mooy liggéey bu waa benn bokk yaakaar ndax benn bokk yaakaar ndam ñu mën a am fii dans le département de Kaolack wala dans la commune de Kaolack et même dans la région de Kaolack ndam bu ñu mën a am ñun ñoo liggéey allié yi def nañ eh, taxawaay boo xam ne ba bennoo di mën a am ndam su allié yi liggéey doon ko noonu bennoo du am ndam fii ñii si ci dëkk li koy firndeel rek mooy bu ngeen xoolee élection yi jóg élection législative yi ñu gañe lan moo waral ñu gañe ko

am nañ apport bu bu significatif. Mhm. apport bu positif ci Benno Bokk Yaakaar ak Kaolack. donc moo tax Benno bi les responsables du Benno Bokk Yaakaar dañoo gën a war a jox cër parti allié yi rawatina ñun suñu parti bi sax muy SDOD. Mhm. parce que li ma mën a fàttali mooy élection législative yi ñu génn chaque jour lu mat 20 jours chaque jour suñu parti dinañ am 13. personne dañuy les jeunes du Bokk Yaakaar muy di ak ñoom dem ci ci ci biir dëkk bi yaa ngi def def ay à mm. parti bu la jox chaque jour jeunes yi nga xam dañuy dugg di porte ak yeneen réseaux sociaux mm. ak yeneen représentativité bu am solo mm. ñu de responsabilité

président heure bu wootee wala képp koo xam ne mu ngi woote ngir président daal mu ngi génn di ci wax di ko défendre ñu ci groupe euh, whatsapp bi di défendre président daal ana ñoom ñu def mm-hmm. donc ñuy jox cër nañ ñu jox cër jox bi mooy ñoom fu ñu teg seen bopp nañ ñu fa teg lu fi ñëw ñu xam na ñun tamit parti lañ ñu séddu ñu kii comme ni ñuy séddee yeneen parti mm-hmm. ñu mën a wàccee jox ko ñu suñu militant donc loolu noonu. mu ngoog euh, mu ngoog ci fàttali moom ko souffle il est le directeur de la vie politique et de l'animation du parti S2D synergie pour un développement durable yoonu naataange moom la dalal tey ci émission bu mag boobee ñu entretien avec ma fekk si ko fii ci këram muy euh, ci du nom de Farhan Dieng tey moom laa dalal ba Euh, ci tënk rek yéen a ngi ànd ak euh, télé boobee ñu duppee Feeling 221 tey ma ñëw fii ci diwaanu Coofak seet si Farkhane Dieng waxoon naa leen ko ci tënk c'est un jeune leader bokk ci parti boobee ñu duppee Benno Bokk Yaakaar waaye bootu ci ginnaaw monsieur Souleymane Ndiaye tey moom laa seet si fii nii di ko dalal est-ce que ci li nga ci sa kàddu yi nga yëkkati sànq jàppoo ni le Benno Bokk Yaakaar a perdu définitivement le pouvoir ndax dafa am loo xamante ni moom mooy euh, ñaari levier yoo xamante ni en tenant le rek boo ko ñàkkee mooy pouvoir le système judiciaire système judiciaire nak bu ko bu force de sécurité et cours et tribunaux benen bi ci système politique média en tant que facteur d'opinion et de peuple électeur est-ce que Japon comme li nga wax que ni dislocation bi ñu ko ci parti bi lolé war na tax ngeen jàpp ni perdre ngeen définitivement le pouvoir waaw mënuma jàpp ne man perdre nañ pouvoir vraiment parce que nous sommes aujourd'hui majoritaires mhm. Bon, xolé tay parti yi fi nek ñu démé élection législative euh, président de la République Macky Sall parti bi muy la coalition Benno Bokk Yaakaar li ma am ci député on a 80 députés boo xoolee yeneen parti yi li ñu am ni 26 dañ am ni 50 nii 26 wala 24 ni 56 donc ni on est majoritaire léegi nag Kaolack nous Benno de Kaolack on a perdu la commune de Kaolack parce que mënoo dem élection ñaari yoon. te élection locale nga perte commune bi. Mhm. élection législative nga perte commune bi boo boobaa yow bu ñu waxante dëgg fii ñu perte nañ. Mhm. léegi nag loolu mën nañ ko dindi. xam nga loolu ni ñu koy dindee mooy comme li ma waxaat fee mooy nu ñu jël jeunesse mhm. jox leen cër bu ñu war a am ci parti bi ci coalition bi nañu doole ñu war a doole man mënuma gëm nga jëm guerre jiital sa benn général nga dem général bi am defet nga ñëwaat jiitalaat ko mu amaat defet soo ko naree jiitalaat boo amaatee defet yaa ko tey. war nañuy xool changer fusil d'épaule xam bu baax fan la ñuy teg suñu bët parce que parti bi wala coalition bi suñu bëggee mu gagné Kaolack ñëpp xam na ñu ñu war a doxalee pour gagné Kaolack. kon daal jàpp nga ni problème choix la. bon li ma jàpp daal mooy du problème choix sax am ci mais problème de considération mhm. jox ndaw ñi seen gëdd responsabiliser ndaw ñi. Mhm. parce que mbir mi tey li tax ñu perte élection yi ndaw ñi la ndaw ñi ñoo nekk ci beneen parti. ndaw nag ay moroomu ndaw ñoo mën a wax ak ñoom. Mm. tey bu ñu gisee la jeunesse ëpp doole yëpp topp Ousmane Sonko. Mm-hmm. parce que Sonko est jeune. te discours jeune jeune ngay déglu mais ñun pour ñu gagné élection yooyu noonu jël jeunes yi ñi xam ne ñoo dem fee ñu responsabiliser leen suma classe gi ku leen responsabiliser ñu xëcc boy parce que yëpp. mu man loolu man tey Kaolack boo ma un mois ma ko ci booy passé yëpp barke yi dootu yàlla. ci ban anam nga ko mais xam anam bu ma ko teg fi ko Ousmane Sonko jaare laa koy jaare parce xamal la. Hmm. xamuñu Sonko gënuñee jàng ëpp ñu diplôme. culture xamul lu ñu xam xamul. Hmm. foofu la ñuy jaar ba jaar parce que dafa am loo xam ne discours boo xam ne bu ñu ko defee ndaw ñu yëngu. mais attends le leader de ngay wax que ñu gën ëpp le diplôme. gënu le leader de Pastef gënu ñuy jàng ëpp ñu diplôme gënu ñuy xam nu ñu yore réew. gënu yow gën a responsabiliser nga gën suñ ma responsabiliser woon jiital ma Kaolack lépp loo xam ne waxuma au delà de Kaolack wallahi azim yàlla rek moo tax ak weeru gàmm bi au delà de Kaolack mën nañu am loo xam ne sax moom. parce que xam nga le fait que nga def benn discours boo xam ne ça touche la jeunesse. Mhm. c'est très facile. mais nag ñun dañu mën a war a ubbil des voies yoo xam suñuy wax muy àgg fu nekk. loolu mooy responsabilité suñ ko defoon Kaolack dañ koy téye en main parce que ñun ñun Kaolackaay bëgg nañu ah. mënuñu ne ci dëkk juddoo fi yaroo fi yaa ngi dégg defaguñ fi lu ñaaw waxaguñ fi lu ñaaw lu baax rek lañ ñu xamee donc foofu bu ñu taalalee loxo waa dëkk yi dañuy wuyu si.

xam nga doomu doomu doomu aadama yàlla dafa am lu lay may ak looy mën. gis nga discours y' a y' a beaucoup de populistes au Sénégal aujourd'hui ñi nga xam ne lu ñuy wax ñoom au fin de de de de de de même ñoom gëmuñ ko mais dinañ permettre ba benn euh, population wala benn nombre de gens yi nga xam ne ils sont ignorants ils ne comprennent pas dañ leen permettre ba ñu topp leen dinañ fëlaw te xamuñ exactement waa ñu fi mu jëm. Mhm. loolu dafa bëri Sénégal dafa bari Afrique tu viens tu amènes benn affaire bu nouveau ñu bëri bàbbe bu topp la ngay ànd ak ñoom ngay tëmax tëmaxi tëmax tëmaxi ba ànd ak ñoom daanoog ñoom dem parce que loolu moo am fii ñun bu ñu bëggoon tey fu ñu toll ndaw ñi du ñuy waxee jëm xam nga yow yow yow yow mu nekk tey ci média yi ci showbiz bi yow xam nga yaa bu gën a xam ne tey soo bëggoon un million de personnes di la seetaan tey léegi mu seetaan la xam nga fooy jaar mais est-ce que yoon donc vous avez bu ñu bëggoon tey jeunesse bi ñu mais est-ce que nous dinañ am mais suñu vous dinañ jeunesse bi ñu ñu topp ñu ba pare am ndax jeunesse bi am fu ngeen yóbbu man man man man nangootuma man gëmatuma ne man nga jeunesse bi ci ay wax bu parce que wax dara xolof yaay ne waaw exactement da ngeen di xëcc ba pare ñu ñëw nga ne leen lii ngi dund moo tax bu ñu responsabiliser ñu mën mm-hmm. mën def dara mën dara jeunesse boobu leen ñu wax ne kaay leen na nañu bu ñuy ànd nañu dañ leen di wax ñëw leen formation baa ngi ngeen def formation opportunité de travail baa ngi nii dañ dugg leen wuti liggéey mm-hmm. mbay maa ngi nii nangam baa ngi nii ñuy bay ñu defal leen ñuy bay ñu sàmm ñu jàppale ñu sàmm ñu yor jakarta ñu jàppale leen mm-hmm. yaa ngi dégg ñeneen ak ñeneen ku leen jàppale ci. mais est-ce yaa ngi ci tànk yooyu tamit pour def. mais waaw xam nga responsabiliser la aussi. xam nga nekk si tànk yooyu tey moo tax ñu invité nañ ñu mhm. nekk si tànk yooyu moo tax ñu def politique. Mhm. nekk si mhm. parce que dafa am loo xam ne doo ko laaj boo ko laajee du ñu jox cër ba. liggéey te ñu ngi liggéey ñoom ñoo war a xam ne ñii tey ku leen pousse ñu dem ba di ko ci mbartal la. donc ñoom ñu xam loolu ñu la jeunesse. parce que bu doo xam-xam ñu ngi sant yàlla am nañ ko

au candidat de la coalition benoît Bokk le euh, monsieur le ministre le premier ministre Amadou Ba nous koy lancer un appel. Mm-hmm. di wax ne comme waxoon naa ko fan yëpp passé defoon naa sortie qui benn journal évidence di mm-hmm. il faut responsabiliser la jeunesse. il faut écouter la jeunesse à Kaolack. Mm-hmm. si si vous voulez gagner les élections présidentielle de, 2024, il faut à qu'on responsabilise la jeunesse. Il faut qu'on écoute la jeunesse. La jeunesse en avant, la jeunesse en arrière, la jeunesse au milieu. On gagne les Parce que tout le monde a dit, tout le monde a moi c'est la jeunesse. Partout dans les pays africains, la jeunesse nous dit, mbir mi seen loxo. léegi a ay ndaw ay ndaw Nous ndaw ndaw ndaw wala ndaw ndaw ñi ne ci beneen camp. mais ñun suñu camp bi responsable responsabilité ndaw yi taxaw ñun jàkkaarloo ñu. mu ngoog ci loolu la ñuy rebondir sax dañu jeexal mu côté laaj ñu la ko muy sa leader monsieur Souleymane Ndéné Ndiaye est-ce que il est pour vous contre le choix porté sur Amadou Ba bi nga xamante ni moom lañ nar a tabb ngir mu jiital parti boobu le 25 février 2023 waaw euh, merci cher ma am notification mooy la xam sama leader mu tudd Souleymane Ndiaye Agul Ndéné. Hmm. Souleymane Ndiaye la Souleymane Ndiaye il est de Boudon. Hmm. donc Souleymane Ndiaye c'est le premier leader bu bokk Benno Bokk Yaakaar bu njëkk a def déclaration. le 28 août 2022. 2022 laa la. Mm. ñun président de la République Macky Sall mooy suñu choix. moom la ñu ànd ak fu Macky Sall tànn noonu la nu mu tànn noonu la août 2022. ñu dem ba président de la République Macky Sall gën def déclaration na mu nekkatul candidat Souleymane Ndiaye génnaat nekkaat le premier homme politique leader politique chef de parti. Mm. gën na. président Macky Sall tànnul kenn de mais comme tànnuñ moom la ànd ak donc loolu muy firnde ne ñun Amadou Ba moom la ànd ak à 2000 pour cent ñu ngi ci Amadou Ba. parce que président de la République moo ñu tànnal Amadou Ba moom mooy Amadou Ba mooy candidat moom amul beneen candidat Macky amul beneen candidat te ñun Macky rek la ñu gëm. moom la ñu wóolu comme li a créé le président Macky Sall pour le bonheur des Sénégalais. donc ñun ku yor Sénégal yi bu ñu tànnee ne ñu fii la ñun fii la. ñun Amadou Ba lañ jëm Amadou Ba la ñuy ànd ak. te ñuy wax amul Ba na pour amul Ba comprendre. amul beneen leader bu nekk Casamance bi nga xam ne mën naa tax la coalition benn Bokk Yaakaar gagné Casamance amul ku muy Souleymane Ndiaye. c' est le roi du de c' est le lion de la Casamance. parce que mooy leader boo xam ne depuis mu nekk DG ba léegi du toog weekend mu fekk ko Sénégal du dem wàcc à la base. Mm-hmm. li président Macky Sall woote.

di taxaw askan bi bërki démb la mujj ak bu domp euh, seen hôpital bu yóbbu fa benn groupe électrogène mm-hmm. bërki démb la mujj fii à Kaolack fii seet si la mm-hmm. donc Souleymane Ndiaye bi partout mm-hmm. te kooku nag dañoo bëgg euh, le candidat monsieur Amadou Ba bu xam loolu xam ne il peut compter sur Souleymane Ndiaye pour être président de la République waaw ah, parce que c'est Souleymane Ndiaye seul c'est le bouclier du président de la République Macky

l'opposant Ousmane Sonko ak tous les opposants yi nga xam ne ngi bëgg jël réew mm-hmm. dans la Casamance dans toutes les régions de la Casamance toutes trois régions yëpp Souleymane Ndiaye moo fa le seul leader ki nga xam chaque jour mu ngi battre campagne man jeexal naa sax euh, euh, dama rombal sax région de Sédhiou bu dëkk mm-hmm. parce que amul keneen moo fa nekk mais muy Ziguinchor muy fu nekk muy Kolda Souleymane Ndiaye moo fa nekk donc nañ ko jox ci Kaolack sax Souleymane Diaye moo fa nekk parce que aujourd'hui quand on parle de Kaolack euh, tu parles de Faraxaan. Mhm. on est là on est présent ci combat yëpp nañ présent. nga dem Nioro on parle de Moustapha Junior Thiam il est présent fépp. donc Souleymane Ndiaye ku ñu war a dooleel la ku ñu war a jox gëdd bi au sein du Benno Bokk Yaakaar. Mhm. kon daal mën nañ jàpp ni vous êtes pour le choix porté sur Amadou Ba mais est yaakaar nga ni itam loolee mën na yokk estime bi nga xamante ni Macky Sall ñàkk na ko ci bopp bi on peut parce que fépp fu nga xamante ni moom dafay teew ak i rek dinañ dégg ndaw yi di ko sonkoriser di yuuxu di yuuxu di yuuxu est jàpp nga ni porté le choix sur Amadou Ba dina indiwaat estime boobee nga xam ne jot na koo perte ci ñenn ndaw yi. waaw pour Ba. Mm-hmm. et on va faire, on va, on va élire Amadouba. La SDD est pour Amadouba mhm. et la SDD va élire Amadouba au premier tour avec une victoire éclatante. Euh. Bon, le président de la République Maxime soit euh, vous me Amadouba, soit vous me Amadouba, mhm. je crois que c'est le meilleur profil, c'est le meilleur choix. Parce que man, ma guise est opposant. Ce sont des pro-Sonko, Sonko 100%.

waa ji jullit la yaru na Sénégal am na diine jàng na xam na nguur kooku ban choix moo ko gën soo gisee benn jeune buy ŋàññi choix boobu benn jeune boo xam ne ignorant la xamul te ñu xamul ñu mel ni man dañoo war a génn ci télé yi comme euh, film 221 gii wax ak ñoom ñu seetaan ko ñu xam parce que ñun dañoo war a wax bu ñu waxee ñoom xam. Mm-hmm. bu ñu xamee jëriñu. Mm-hmm. Amadou Ba. ku ànd ak Ousmane Sonko gëmal ne Amadou Ba mooy chef Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko booy Amadou Ba la woon impôt domaine Ba moo nekkoon directeur mm-hmm. kon lu Ousmane Sonko liggéey impôt ba am ndam mm-hmm. waaye élève bu liggéey ba am ndam te moo ko waral professeur bi professeur Amadou Ba nag moo jàngal Ousmane Sonko impôt domaine yor fa naa ko jaaral bi defal bi demal fee visiter fi contrôler fii ba Ousmane Sonko am ndam kon Amadou Ba. ngeen xam loolu ba pare ñenn ci seen parti bi ñii di démissionné ndax choisir nañ Amadou Ba ñii di frustré wu ñii di démissionné di teg taw ñenn sax di fi ku ne ñoom it candidat lañ te bokkoon ci parti bi lu tax loolu. waaw lu tax loolu mooy ñoom ay intérêt personnel xam nga ñëpp mënuñee boole baax. Mhm. te ànd bu ne rek foo nga gis fa ay hypocrite foo mu am parce que ñi génn fi bu leen président Macky Sall defal. Mhm. lu métti métti bu leen président parce que tey ku xam Aly Ngouille Ndiaye c' est grâce au président de la République Macky Sall. Mm-hmm. ku xam Mame Boye Diao Macky Sall ñun leen jël may leen doole. Mm-hmm. ëpp ñu xam-xam ne Aly Ngouille Ndiaye man daa ëpp ma xam-xamu mu ko dénk. ëpp ma xam mm-hmm. ko dénkoon ma def résultat yoo xam du ko def. ñu jox keroog bu ko jox kenn koo xam ne moo ko dàq comme ñun bu président Macky Sall bàyyi ñëpp ñu tànn la ba nga am ci li nga am bu tànnee keneen da ngaa war a gore dem ànd ni ko. da mooy honnêteté mais nit ñi ma ne bu dul man nag du dara boo xoolee doo nit ku baax. ñoom Aliou Mbuy Ndiaye yëpp loolu laal leen di wax delluwaat ginnaaw bu njëb nit ñaar ñi toppul ñett ñoom bu leen nit ñi toppee bëggee du ñoom Macky Sall nit ñi bëgg Aliou Mbuy Ndiaye maam Boy Diaw bëgguñu ne de nit ñi Macky Sall lañ bëgg léegi nag Macky Sall fu mu ñu joxoon Amadou Ba la ñu joxoon ñëw leen ngeen ànd ak Amadou Ba ku ci ànd ak Amadou Ba bu ëllëgee leen ko rëccu parce que Amadou va gagner dès le premier tour incha allah. loolu dafa leer. parce que ñun xam nga waxuñu waxuñu waxuñu bakkan waxuñu bakkan de dañuy toog di jàngat ay analyste politique lañu. suñu jàngat gi rek yemuñ ci toog ci terrain yeeg nangam nangam xëcc ay livre lire wala dem jàngat wàcc ci terrain bi. terrain politique wàcc ci terrain wàcc terrain mooy dem ci tey débat dem ci nit ñi dem ci arrêt jakarta yi dem ci garage yi dem ci ndey dikki maire yi nangam nangam waxtaan ak ñoom. nga xam bu baax lu muy liggéey. Nous, on, est en train de travailler. Et en plus, nous, un bilan, le PSE de 2012 à 2023, ce que le président de la République a pu réaliser au Sénégal. Mhm. Nous, avons depuis 1960 2012 Sénégal mon prenons l'exemple de l'électricité. de 1960 à 2012 on a 500 kW, 500 mégawatts d'électricité au Sénégal président Macky Sall 1600 une électrification.

bu ñëwoon rek sans bilan rek ñun on va voter Amadou Ba. Mhm. plus le bilan du président de la République Macky Sall. Mhm. mais lu ci des dañuy jël di ko jox ay Malick Gakou mi nga xam Malick Gakou mi nga xam ne dañu ko jox ministre du commerce mu téye ko ñaari weer daw ba fa na mënu ko yor dinañ jël réew mi di ko jox koo xam ne Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne dafa nekk ministre de l' agriculture ba digg nawet digg nawet nawet bii ci nawet mhm. mu démissionné nit ñi nga bëgg sa réew ñu dénkal agriculture ba digg nawet yi démissionné d'accord nga de yow yaa démission ba pare ëllëg nga ne rek tourné waat ne leen kaay ne voté ma bëgg rek réew mi de sa intérêt personnel ci nga nekk wala réew mi moom ku koy jox ki nga xam ne tey dafa bàyyi lépp ngir réew mi. mais mhm. Amadou Ba topp président Macky Sall Amadou Ba Macky Sall toog na ko 2019 doo ko dara bàyyi lépp topp président Macky Sall yow moo tax ku bu mu muñee 2019 nekkoon boobu mu ngi nekkoon ministre chargé des affaires étrangères ñu wàccee ko mu muun muun tey muun ñam ñu nii mais ñi nga xam ne tey wàccee nañ leen ñu yaakaar ne bu ñu leen wàccee am na bi jukki ne wala bu ñu leen waroon leen a wàccee ñoo ëpp ñëpp xam-xam ñoo ëpp ñëpp xalaat ñoo ëpp nit ñi fu ñu mujj ñun daal ñun waa Souleymane Ndiaye ñu ngi des ci Amadou Ba te insha allah leer na ma leer yàlla ne yeneen ko fekkee jàmm te tal ko au soir du 25 février danañ yoxul ndam solo fii ci Kaolack ca Casamance partout au Sénégal dañ déclaré victoire à la coalition Benno Bokk Yaakaar. ndax réew mi ñoo soxla continuer. incha allah li ñu cëralee woon ci temps jeex na ban message ngay lancé jeune bi jeunesse bi waaye tamit lan yan kàddu ngay tàggatoo su ko defee ñu tàggoo rek ndax li ñu cëralee woon ci. waaw tàggatoo bi mooy maa leen di sant bu baax di leen gërëm. Mhm. di leen ñaanal yàlla bu baax a baax yéen a ngi participer ci lu am solo ci réew mi. Mhm. mooy dem ba ci ruq-ruqaan yi fekk fa ay ndaw jox leen micro ñu wax génne lu nekk seen xol. génne lu nekk seen xel. parce que gars yi dañoo yaakaar gis nga télé yéen yi ma jox exemple parfois ñu invité TFM wala 2S ñu koo xam ne sax waruñu ko invité am na ndaw ñu nga xam ne ñu ko waxul ñoo leen ëpp xam-xam ñoo leen ëpp lu ne waroon ñoo ko waroon toog mais duñ ko toog mais yéen nag xool xool leen loolu yéen xool leen ko am xaalis xool leen ko siiw xool leen loolu mais da ngeen xool ñi nga xam ne tey mën nañu wax askan bi jël ngeen dem ba foofu donc ñu leen di encouragé di leen ñaanal yàlla tele bi na dem ba àgg fi ñu bëgg a àgg yéen ñi fiy liggéey nii na ngeen dem ba àgg fi ñu bëgg a lu ñuy wax jeunesse bi mooy ñaari baat yi rek ndaw ñi nañu dem jàngi nañu yaru nit ki boo amee teggin am xam-xam lu ne mën nga ko am ku jàngul nag dof ngay doon wala xob bu woo ngay doon fu ngelaw ñëw këf la yóbbu la ku amul yar nag doo am dara yar boo ko amul mën nga am xam-xam lu ne amoo yar mënoo am dara fii ku bëgg am dara ci réew am yar am xam-xam ndaw ñi am yar nañ am xam-xam suñu amee luñ bëgg mën na ko am jërë ngeen allah c'était un réel plaisir Tay ñu ñëw fi ci diwanu Thiof ak seet ko muy wuyo ci du nom de Farkhane Dieng Mo fàttali len, il est le directeur de la vie politique et de l'animation du parti S2D synergie pour un développement durable Yonu naataange mom la seet si woon c'est un jeune leader boo len déggo kàddu yi nga xamanteni yëkëti nako ko wax ko jëmele ko ci askan wi nga xamanteni nit ku am ambition mom moy wax waaye tamit nit ko xam ku déterminé la aussi ci limi def mom moy yëkëti ay kàddu Mo taxone mané len feeling 221 à chaque fois mom moy dox ci utile ak rien que pour vous servir kenn ku ci nek beurep bi nga nek ak ci li nga yëngu rek jàppal ni mën nañ la sét lu suñu micro les lu nek ci sa xol rek nga génné ko kon ñun yeen lañ fi nekkal restez connectés sur nos antennes Feeling 221 quand c'est important c'est issu et nulle part ailleurs di c'est sama technicien bi Lamine di jaajëfal mbooleem ku doon sétane Feeling 221 à travers chaîne bu mag bi ni ñu ngi won fi ci diwanu Coof ak Nangaan ci mon frère merci et à très bientôt merci beaucoup